ahlan bikum dimanche ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ci la ñuy xamal jongante njiitum réew bu Sénégal allah njiiti réew mi Macky Sall moo jël dogal bi ni mel Le Soleil yéene kaay na ko yemut fa de fa wàccee Amadou Ba mi nekkoon njiiti jëwriñ yi remplacé ko Sidiki Kaba libération ne faa leen di wax lan moo tax njiiti makki Macky Sall jàpp dati élection yi ayaw seetal waa conseil constitutionnel fa ñoo jël dogal ne njiiti réew Macky élection yi nga bëgg a organiser le 2 ne waa dialogue national ba ñoo ca déggoo sant la ko fañ lay xamal na la loolu mënta nekk élection yi balaa sa mandat ba jeex lay xam loolu la ñaar soo organiser wut élection yi ba mën a continuer jiite réewum Sénégal duñ la yokkal benn fan waxuma la ak ay weer ndax charte réew mi moo ko bañ article 36 alinéa 2 ba ngay wax nag ne moo lay may sañ-sañ nga continuer jiite réew mi ba ki wuutu ñëw déedéet loolu su fekkee élection dafa am ba am ku la wuutu ci ngay continuer toog ba waxtu remplacer la jot waaye su élection amut yow

toll fini caaxaan faaxee réew mi yéen a kaay ne conseil constitutionnel soufflé na récréation fin jeex na ne njiit réew mi nag nguuram gi ni mu nar a jeexee nii fa doy war trop toxal na wote yi te lam bëggoon amut nguuram gi fay jeex ba mu dem du mën a jébbalante lenga yi ak ki ko nar a wuutu loolu yëpp rafetut te mënoon na ko cee bañ fekk léeg ko yéen kaay ne waaye date bi mu jàpp élection yi le 24 fa ñuy fekk ci carême fekk ñu tamit ci biir am élection njiitëram Macky mars la jàpp conseil constitutionnel ñoom fa ñoo jàpp 31 mars vox populi ne loolu nag mooy carte gu jaxasoo dëgg nag direct news ne xëccoo moo nar a am diggante njiitëram Macky Sall ak conseil sur sa ay yéen na ko guerre xëccoo soo xamee seen diggante ñoom ñaar ñooñu est-ce que dina ci am ndam yaakaaruma ko de ndax président rek moo am sañ-sañu jàpp datu élection léegi su fekkee deuxième tour nag fa nar Sénégal lii yéen a kaay na léegi man faa xamut ban date la amal élection yi le mars wala le mars l' mel ni ko naan ko faa lay tontu gis nga loolu nekkul problème parce que conseil constitutionnel tey jii ci alxamis ji fa ñuy bind bataaxal ne d' nañ ci mars bi njiit réew tànn rek su ñu dem élection yi mu jeex jàmm na ñooy ñi amul jàmm nag ci dogalu bii conseil constitutionnel jël mooy waa PDS yi ñoom ñoo ci gën a perte fa ñoo perte dix perte ñu doon def nii yëpp Karim Wade mujj ta bokk le réveil yéen a kaay nañuy perte nañ perte gu mag sax 24 a kaay ne waxtu dëgg moo jot képp ku nekkutoon ci dëgg fa ngay fori new laneen luy dëgg mooy ne Amadou Ba njiitiram Macky wàcce gi ko wàcce premier ministre nekkul fa koo dàqoo fa koo mere déedéet fa koo wax na ko demal nga waajal sa bopp ngir campagne ji te Amadou Ba sax génne na bataaxal wax na ko nee na fi mu toll nii faay waajal campagne te loolu mënta ànd ak premier ministre ndax moom mooy candidat benn bokk yaakaar info yéen a moo tax mu deltu ginnaaw lii ne conseil constitutionnel fa ñoo saboote yëf yi 31 mars biñ jàpp élection yi di tombeek pak te affaire bi matul 80 yi ñu wax ci fi ñu war a jàppee wote ak fi ñu koy amalee ñu ne déetewaay campagne bi fañ ko nar a amal ci biir weeru koor yi le regard yéen kaay mel ni ku koy tontu na ko hëy waa conseil constitutionnel yi amul lenn lu ngeen leen war a wax seen liggéey lañ def fa ñoo jël seen responsabilité ndax suñ seetaanoon ba le 2 avril weesu élection amul fan la réew mi jëm wala fa ñoo muccal réewum Sénégal ci guuta gim bi yéen a kaay na yëf ya jàll na rek waaye liñ ci a ne ñoom d'accorduñ ci loi moo tax wotewuñ ko a kaay ne Pastef fa ñoo bañ ne duñ bokk ci liggéey ba pare xëy baal i mbokk perte ne na ñoom loolu ko turbine yéen a kaay ne 86 doomu aadama yoo xam ne faatu nañ ñu rey leen diggante 2021 ak 2024 ci ay ñaxtu léegi fi mu moom perte nañ rek ndax loi amnistie bi jàll na juróom ñeen fukki député nag ak ñeent ñoo ko wote na d'accord nañ ca ñeen fukki député ak juróom ñett ne ñoom ñoom wotewuñ ko d'accorduñ ci ñaari député fa ñoo bank seen loxo waxuñ d'accord nañ waxuñ d'accorduñ express yéene kaay ne Sonko ak waa Pastef yi lañ nekkoon ba léegi jóguñ ci te mooy ànd ak askan wi ak seen ngor moo tax ñu bañ a wote loi amnistie bi critique yéene kaay ne député yu wote loi amnistie bi deret bakkan yu rot ñu nar a jégal ña ko def nii rek ah doy na waar le public yéene kaay ne jëwriñ ca fa nekkoon nag Aïssata Tall Sall nee na su nguur gi jeexee ku ma woolu ca a mag ci àdduna bi faa lay wuy ci ndax na ko terewul kalaama ya ñu amal ca CPI dana ñu topp gaañi ci yoon l'observateur ne faa di wax dëgg gis ngeen loi amnistie bii ñu wote démb sa assemblée nationale man daal faa ci jaaxle ndax faa di fàttali wàllu terroriste yi ñu fi doon wax bi ñu jàppee ñu doon ñaxtu naan ñi ay force spéciale la ñoo commando terroriste lu garaaw yooyu ñu waxoon ne def nañ ko ci réew mi yëpp ñu xëy na leen léegi defu leen dara ñi fi rey ñëpp ci ñaxtu yi ñu xëy neenal ña leen rey mu mel daal Sénégal dara effacé ay mémoire te li gënoon a rafet te jekk mooy bala ngaa baaxal nit nga amal enquête ba xam kii moo def ak kan moo ko santoon mu def teg leen ay daan libération na ko may wax nag ñu naan fa ñu jël xaalis ndàmp ko njabooti ñi nga xam ne fañ leen a rey ci ñaxtu yi bakkan moo gën a foor xaalis nañ xam ki rey ba pare kay sur sa kaay ne loi amnistie bi nag comme wote nañ ko ba pare Ousmane Sonko ay fan yu néew léegi tey mu génn kaso dem ñibbi nga xam ne mooy candidat Pastef moom itamit ñoom ñëpp fañ leen di bàyyi ñu yem ñibbi